ale mbokku euh, internetu Kabir TV ñi ngi am mbégte ak kontante di teewaate ak yéen seen biir émission Kabir Sport waaye nag ñàkkul ni euh, chaque match Sénégal waaye après match Sénégal aussi dañuy faral di wàcc euh, ci terrain bi nee naa leen Thiès yemul ci promenade ba ak ni fa doomu aadama yi di daje ak ni fa doomu Thiès waaye rek di daje dañuy ñëw fii ci marché centrale bu Thiès bu ñu nee marché central bu Thiès nag marché mu sant mi ngi fi Grand Thiès mi ngi fi Ocas ngi fi ak yeneen ak yeneen marché bu Thiès day centrale bu Thiès donc moo tax euh, tey ñu ñëw fekk si fi suñu benn waaye suñu benn euh, ndaanaan bi nga xamante ni nii euh, xam-xamam nag màccul ci wàllu wii rek muy yëngu waaye xam-xamam màcc na ci wàllu rajo lépp lu jëm ci waa wàllu rajo yooyu muy Ségi Ndiaye Atoumane donc mu wax ñu moom it chaque match Sénégal dañuy faral di gis Thiès taxawaay bi mu ciy am dañuy faral di gis mbir wu yaatu muy def ci liggéeyu match Sénégal donc ba tax na drapeau yeeg bagage yu baax yi ah da koy faral di jaay mu daal di nuyoo mbokku téléspectateur Kabir TV euh, moom Seydi Ndiaye Atoumane euh, mu wax ñu aussi ana naka la dundee match bi démb ak naka la ñuy waajalee suñu match bi nga xam ne moo dox suñu diggante ak Angleterre Seydi maa ngi lay ziar. salaamaaleykum euh, DJ Thier maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur Kabir TV di leen jaajëfal ci seen teewaay fii ci marché central di am contentement bu baax a baax a baax ci seen ñëw fii waa di di sawar nag lool lool ci question bi nga xam ne moom nga ma posé. mooy matchu Sénégal bi nga xam ne moo génn démb ñu am ci contentement euh, am ci dévouement gis ci gis ci gis xam bëgg sa réew. muy joué joxe nañ lépp loo xam ne amoon nañ ko. supporters yi aussi tamit bàyyi wuñ leen génnaaw. lépp parce que ñëpp nga ngi gisoo drapeau yi nga gis dañuy jënd jënd maye lu mu cher cher ñu jënd ko. brassard lu mu cher cher ñu jënd ko bàyyiwuñ dara kon nag euh, lii. dañ ko mérité sénégale dañ ko mérité parce que dañoo dañoo dañoo wane jom fulla ak fayda mhm. li nga xam ne moom lañ leen laajoon ci marché bi lépp loo gis la ñu xalaatoon joxe nañ ko ci marché bi ñu contentement ci lépp marché bi Sénégal ñëpp kontaan réew mi ñëpp doon benn ñu booloo tappe xol yi mu doon benn ñëpp kontaan lool lool lool macha allah am mbégte aussi tamit mais tamit ñu gën a xool ne lii nii mhm. bunt la rek dañoo am benn buntu buñ tijji des na leneen ci biir li nekk ci biir suñu kanam na moo ëpp solo fuuf ci lu ñu génn xam nga boo déggee tubaab naan euh, ci on a gagné la mais pas la guerre mais bataille bi fi mu ne nii nag lañ gagné gum mais des na stratégie yoo xam ne war nañ ko tegaat xoolaat équipe bi ñu gën a soudé wuwaat ñëpp boolawaat doon benn ñoo xam ne nii ñu focus ci kanam. ndax lépp moom moo am solo loolu mu ci ëpp solo. bu ñu booloo doon benn rek. lépp dina baax incha allah waaw te ñu góor góorlu xool si porteur doon benn joueur yi doon benn ñu daal di góorlu incha allah ñu fokki si dem ci kanam mm-hmm. yàlla mën na indi réew euh, coupe bi ci biir réew mi incha allah te am nañ ci yaakaar bu am nañ ci yaakaar bu baax a baax dinañ ci am satisfaction ndax ni ki ñuy jëm suñu kanam dimanche ñun ragaluñ ko ndax onze lay teg ñu teg onze am nañ ren à Angleterre am nañ tamit suñu euh, kii nekk député boobu maam Diarra Fam bu Pikine am nañ ren d'Angleterre ñu ne am nañ suñu ren d'Angleterre Pikine la dëkk <laughs> ginnaaw raay <laughs> léegi mooy affaire bi focus la rek maanaam gëm-gëm la. nañ gëm suñu bopp xam nañu fa yóbbu ñu def jom ak fulla ak fayda. day door ñuy dóor. waaw ñuy daw ñuy daw dàq ñoo daw. Ah amul lu ñu ëppale. am nañ ay habitants am nañu habitants. waaw léegi li min min mi leen la bal la ñuy teg. ñu teg bal bi. Mm-hmm. ñu dawal ñu dawal. gëm suñu bopp am ci nag gëm-gëm bu baax a baax a baax te xam naa ne joueurs yi am am nañ fulla am nañ fayda te li mu war a def dinañ ko def dina mat sëkk dara du ci manqué allah waaw di kontaan baax a baax a baax a baax dëgg euh, mu nekk Seydi Ndiaye Atoumane fii ci marché central bu Thiès comme ni ma leen ko waxee ci euh, début émission bi euh, donc ñu gis aussi benn mobilisation bu am solo bi nga xamante ni nii ministre sport ba Diattara def na ko mu initiative bu am solo bu mu amal bépp gox nag fii ci diwaanu Sénégal muy fan zone waaye nag bu ñu nee Thiès bu ñu génnee région Sénégal Thiès da cay gën a rëy macha allah aussi dëkk bu am avenir dëkk bu euh, bu bu bu ñëpp doon benn donc mu nekk dëkk boo xamante ni démb aussi ak fan yëpp gis nañu euh, promenade des Thiessois fan zone bi fay am donc fan zone bi nga xam ne mi ngi am foofu ca promenade des Thiessois euh, yemu fa waaye nag yéen waa marché central ci biir moment wu marché Sénégal aussi da ngeen di faral fii di fi def benn ambiance mobilisation bu am solo ba tax drapeau yi lépp wàcc xoolal gis nga fi mu ne nii boo gëstoo nii euh, am na benn drapeau bu ñu takk fi ne bi yëpp day doon vert jaune rouge. alignement bi yëpp d'ici d'ici demain ou après di ngeen fekkaat fii day fees dalal ay drapeau. parce que instant dañ ko danañ ko harmoniser harmoniser boo xam ne danañ ko décoté te instant ñu ngi ci décembre. waaw taal lampi. Sénégal euh, lumière yeeg lépp vert jaune rouge yi di tàkk. lampe sapin yi sax xam naa di tàkk voilà vert jaune rouge ñu daal koy dóor mu daanu. Ah. parce que instant fu ñu toll moom moom moom macha allah moom. ah du yomb de mbir mi depuis 2002 lañ ci géej. wallaay ndeysaan yombul de. wallaay wallaay du ñu bàyyi dara dara dara dara. pépp eh, eh. suuf bi ko mayee. dëgg la waaw. moom daal dinañ lu ñu am rek dinañ ko joxe. bakkan bi daal lañ ciy teg moom. bu soobee yàlla incha allah. moom daal mobilisation ñun ñëpp defar. ñun ñëpp defar koñ yeeg. comme ni ñu koy defee ci nawetaan di ko gisee ci nawetaan nga gis seen koñ nañu xam ne lii une toute une nation jàppal ni yow lii sa koñ la yaa borom ku bi yow yaay borom na rafet na lépp rafet dëkk bi ñu décorer ko ba mu rafet peinture koñ yi def takk drapeau yi rëkk junjun yi ñu jëli coupe bi incha allah incha allah nee naa la xam naa ne ceebu jën mooy suñu plat national sax buñ ko mënoon def version rouge jamono ji dañ koy def amaana légumes yi dinañ ko créer donc mu ngi noonu buñ fi jugee nag dañuy xooliwaat quelques éléments fii ci marché centrale bu Thiès di leen ko fàttali seen émission Kabir Sport eh, ci chaîne bi di Kabir TV du ñàkk nag ci kanam tuuti réaction bu ne di ngeen ko ci am eh, képp koo xamante rek yaa ngi bëgg xam li xew biir Thiès dara du leen ci impo ci seen biir émission Kabir Sport is